ñi rek sàkku waaw gannaaw bi yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di waxaat bu baax nag tey dafa nekk une date historique le 14 septembre bu jotee rek xel yëpp day dem ci benn nitu yàlla bu ñu wax Abdoul Aziz Sy Dabakh dinañ ñëw nag kan mooy Maam Abdoul Aziz Dabakh ak lu waral 14 septembre bi mo Abdou Dabakh yalla def na mooy ki nga xamé ni moy doomu mam Seydil Hadji malik waye nak doomu Safiyatu Ñang ci nono nak dina ñew tuti ci arbre généalogique bi nga xamé ni mom la am mom mo Abdou Aziz Dabakh diggante mom ak wa Touba wa ak digganteeg moom ak sénégalais yëpp mo Abdou Dabakh ndax Mame Maram Mbàkke bi nga xamé moy seen wayjur dafa amon ñetti doom dafa amon Amadou Faramata tierno Faramata ak Ibra Faramata Amadou Faramata mo jur matisi, mo jur Mati Mbàkke Amadou Faramata mo jur Mati mbake Mati mbake mo jur Ousmane sib bi nga xamé ni mo wëyu Seydi Hadji Malick Ousmane si jur Seydi haji malik kon lol moy ki nga xamé ni moy ben dom bi nga xamé ni moy dom ki nga xamé ni mooy maam Mara mbake Amadou Faramata mo jur mo jur mo jur mam Balla Aïssa Buri mam Balla Aïssa Buri mo jur Cheikh Ahmad Bamba yaangi ngi kon loolu nga xamni ne Touba ak tiwan ben la waye ma Abdou dafa ñëwaat ci benen ki nga xam ne mooy buri mbàkke buri mbàkke moo jur ngañ ñan ngañ ñan jur safiyatu ñan safiyatu ñang di way jur bu jigéen di ma Abdou Aziz baax kon loolu dafa nekk li nga xam ne dafa symbolique li yàlla di wax ci alquran ni inna xalaxnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa xabaila li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum kon yàlla bi ñu bindee ba pare moom yàlla daf ñoo boole ci ay ethnie boole ci ay famille loolu nag moo waral ma Abdou Aziz baax bokk ci si waaye tamit bokk ci Mbàkke léegi nag ma Abdou da baax way juróom bu góor Seydi Hadji Malick ak tur bi Seydi Hadji Malick dafa nekkoon jàngkat nekk jàngalekat dan liir ay livres yu bari ki nga xamee ni mooy turandoo maam Abdou Aziz baax dafa nekkoon un poète ku ñu wax Abdou Aziz baax di un poète bind benn téere bu ñu wax dégg nga Ibris Ibris téere la boo am si moom ma de baax bi nga xamee ne mooy turandoom moo ko bind léegi bi mu ko bindee nag Seydi Hadji Malick liir ko gis maanaam contenu bi ouvrage boobu am ci la jël tur bi daal di ko jox Abdou Aziz baax waaye nag Serigne fàllu Mbacké yàlla na yàlla lokk yokki ay leeram bu daan ak ak ba boo xam ni mu amee barke dafa gis Abdou Aziz baax rek ni ko ah moom de daa baax rek daa baax rek léegi nag daa baax boobu nag moo bari ci moo gën a moo gën a fës ci Sénégal waaye maa Abdou Aziz Dabakh turam dëgg-dëgg mooy Abdou Aziz Dabakh ki bind ki tuddam turandoom poète la nitu yàlla la mu ngi dëkk fii Maroc tur boobu la ko dégg nga Seydi Hadji Malick jox waaye Serigne fàllu Mbacke yàlla na yàlla yokk ay leeram bu ne ma ab des ne daa baax rek da ba daa baax jooju sax moo gën a siiw ci turam yi. waaw jour boobu dafa nekk jour boo xamee ne si ñi ko fekkee xëy na sax yéen ñii boobu ay xale ngeen ñu ci bari ñi bu ñu amee ay deux mois ci la ñuy yem waaye bis boobu nekkoon na bis bu symbolique parce que bis boobu àdduna bépp dafa mel ne dafa am benn xibaar bu ñu leen di wax li leen ki nga xamee ni dafa nekkoon un homme de Dieu dafa nekkon nit ku nit ku wacce bopam mom maam Abdou Aziz Dabakh nit ko xamé ni si dan jokk mbokk comme niko yone sallallahu bi salaa sallam nan afsu salamu wa at'imu taamu wasilul arhamu li bo len ko defé tadkhulu di ngeen dugg ajjannata ajjana bi salam yëpp ma Abdou Aziz Dabakh daf ko daf ko jafe ma Abdou Aziz Dabakh dafa respecté won nit sunu mbokku chrétien yi dañ ko bëggoon ñi nga xamé ni bokku ñok mom sax tariika dañ ko gëna bëgg manam ma dafa dafa fonkon nit parce que yàlla dafa wax ci alquran ni wala qad karam naa bani aadama wa xamal naahum fi l barri wal baxri wa razaqnaahum min at-tayyibaati wa falal naahum ala kasir mimman xalaqnaa tafdila yooyu ma ab yooyu yàlla wax ci nit moo tax ma abdal si fonk nit moo tax bi mu génnee àdduna asamaan si boobu man temps yu nekkoon naa xale waaye ci àll bi lañ laa yëgee ni ah tey asamaan si yéeme na ñu ni ma kan moo génn àdduna boobu xale lañ mais biñ nee nañ ma Abdou Aziz baax dañ ni bettuñu parce que nitu yàlla bu fekkee mat nga nitu yàlla booy génn àdduna di nga am dina wa dina wane benn trace boo xamee ne seen ni kii jàmmukatu yàlla bu mag la génn àdduna ku jàng téere mag ñi di nga xam ni yu mel ni bettul kenn woy juram bi maam Seydi Xaaji malik bind na benn téere bu ñuy wax Fala Budda téere boobu li mu ci wax moom Seydi Xaaji Malick mi nu ngi naan Fala Budda min shakwa ilallahi kurbati Fala Budda il faut may may may may tawat ilallah yàlla kurbati sama njàqare problème bi ñu am ni yàlla rek moo mën a indi mo meune indi solution bi fala budda min shakwa ila allah kurbati fama li ghayra allah jabir karsat way juram seydi xaaji mal neena amul kenen ku meuna a réparer problème am ko dul yalla way juram bi nga xamé ni moy cheikh ahmad bamba bo demee ci ben téré bo xam ci cheikh ahmad bamba moko bind di nahjul xadaay il xaaji muy jàngale la bonne conduite nga xam ni way jur la ci ma abdu aziz dabbaax nee man faala ma shaa lakhiya ma shaa Seigne Touba néna ku def lu la la li nga gis fi am ci dëkk bi mooy dañoo def lu ñu kon il faut ñu dajeg lu ñu parce que feebar bi kenn kenn kenn kenn xalaatu ko woon lan la def am na ñoo dégg ay sëriñ xam nga dafa am ñetti façon façon ni si ko le chef spirituel am kuñ naan le charlatan ak le chef coutumier ñoom ci catégorie sëriñ lañ leen waaye le mot sëriñ dëgg-dëgg baatu olof la mais dëgg-dëgg baatu arab mooy siraaj moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ni moo gën ñëpp ma Abdul Aziz Dabakh bëggoon ko ba boo xoolee sax Taaha bi nga xamee ni mooy turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xoolee Taa ci chiffre boo ko compté da lay jox 9 ha nekk 5 mu jox la 14 ma Abdul Aziz bëgg na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba dégg nga le 14 septembre la génn la génn àdduna kon dañoo nekk ci jamono boo xamee ni si sëriñ mooy inna arsalnaaka shaahidan inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kep ko xamé ni si yaangi leral nit ñi dañ lay jappé comme ko xam si da ngay leral nit ñi kon amna yenn charlatan yu nekk ci dëkk bi naan mën na ñoo faj lii mën na ñoo faj dara parce que bu fekkee yow mën nga fajj fajal ci corona bi batay ni amuñu remède amna ben téré bo xamé ni si way juram Cheikh Ahmad Bamba moo ko bind di matlabu shifaa yi matlabu shifaa yi mooy la recherche la recherche du remède te boobu Sëñ Tuubaa feebaroon na fair boo xam ne si téere boobu daf ko jàng wér kon maam Abdou Aziz Dabakh bind na benn téere bu ñuy wax sulam sulamul murid nga xam ne damay naan su mbokk sama mbokk taalibe yëpp dañ ko jàng ndax benn téere la boo xam si escalier la boo xam te la yóbbu ci yàlla incha allah bu ñu ko fonkee di ko jàng te maam Abdou Aziz tolloon na ci ben dimension bobu ci lu mu yan yàlla yàlla may ko ko wax na ci wo bi muddi awli rahmani min faydihi min azami alawani awaani banan shaykhi wa sayyidi abul abbasi munqidana muzill kull albasi wa shaykhina muhammad alhali alabar wa sahib rimaq shaykh al wa jaddina hali abul mansur alfahimi hadi ila alghuyur wa bi qadihim al umami maliki qaidana li ahsan almasalik kon ñun buñ bëgge yàlla fajal ñu sunu febar dañuy def tawassul mag ñi seen jamono xeyna sax hôpital amon na mais xeyna na temps yooyu ñoom dañ dan tawasul ci yalla buñ tawassulé ci yalla wër ñun nan lañ wara tawassulé ci yalla moy ñu bayyi bidaa yi bu né bidaa nak du rek liñ gëna min moy jëf yu bon yi nañ ko bayyi ndax bo xalé tay ah tay bo gisé taw bi bari fi ma waxee yow ni sax dafa taw sank tay au moment où je parle taw na taw bo xamé ci nit ñi sax amuñu fuñ jaar parce que nature bi dafa place am yalla dafa wax ci alcorane ni khul in kuntu khul قل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا بولين جيغلو سين بروم دي جامو يالا يالا داي داف داي اندي خيوال بيغا خو بين خولاي ني بينو بينو ديفه كونفيرمان بي دافا ملني ديغا ناتور بي دافا ديلو ا سا بلاص باسكو ميم وا ميتيو ساخ دانيو بريفوارون تاو بو خامي ني سي ورونا ام سي ديماس بي مي تاي ترو تار تاو بي تاي لندي لا te bisu lëndi dafa nekk bis bu historique ci ci ci ci ci maanaam ci ci année musulmane nga xam ni ndax yonent bi salaahu salaam lëndi la gane àdduna lëndi la gàddaay waaye lundi la génn àdduna kon lundi dafa nekk bis boo xam ne bis bu historique historique ci ki képp koo xam si wax nga naan ashhadu an laa ilaaha wa ashhadu anna muhammad rasulullah ah maam Abdou Aziz Dabakh day dafay fekkoon ay magam fekkoon na fi Cheikh Al bi nga xamee ni ñoom ñaar papa lañ bokk waaye mu bëggoon magam sëriñ Babacar si ba def ci moom xasida xasida boo xamee ni si nee na boo leen way bu yéen waykat yi bu ngeen di way sëriñ Babacar yi ngeen ciy def def ci ay instrument nee na bu leen ko def minal basiti madidin kaamilin dégg nga ak ni mu ko waxee ba xasida bi jeex fonkoon na magam sëriñ Babacar si ba nee nañ sax benn jamono bi mu gënee nekk xale fekk Tiwaawan ñëpp di ziyaara maam Abdoulaye Dabakh di rang pour di ziyaare sëriñ Babacar si kon message bi may ci may lancé à la famille de Seydi Hadji Malick mooy ñu ngi ñu ngi ñaanal Serigne Babacar Sy Mansour yàlla yàlla may ko gudd fan bu ànd ak wér gu yaram ndax way juru way juru si Babacar Sy Mansour ak way juru maam Abdou Aziz Dabakh ñoo bokk ndey ak baay bu def na benn xasida ci Serigne Abdou Aziz Dabakh banaan ko Abdul Aziz axir ne xalbaka usika wasiyatan an tafsi kulla ma fika fi za zaman lazi amma fasada bihi fala tara ahadan dégg nga fihi yusafika na nga muñ ndax aduna di nga bis dina ñew yow abdou aziz dabakh yi yakoon yep yépp yaa ko mana a ko defar ma abdou aziz dabakh limu defar ci senegal wallahi batay yalla dokay fay manam limu defar ci senegal ma abdou aziz dabakh problème bu dan am ci dekk bi tak tak, wala lo am ci mun na indi fitna bu ma abdou aziz dabakh waxe rek de nga solution am kon dañuy ñaan yalla, yalla nañu yalla tas ci barkem de nga di ñaanal site bi di